Danib Home nekk ci suufu pont wu Yoff bi nga xam ni lépp loo soxla ci sa kër ci ameublement ak képp kuy tabax kër ñëwal Danib Home Danib Home moo leen di may la revue de presse. yéeglekaay doon mbir mu doy waar di lëmbee réewum Sénégal jamono jile ak jafe-jafe bu mag bu mu fi daal di doon yi ni kay groupe Média Invest gi moo daal di xëy rek sottandiku gëstu bu ci daal di amal du lenn nag lu dul ay lakk-lakk yu wéy di laggal askan wi ak ñoo xamante daanaka seen ko dund jeex na tàkk wallu ko lakk-lakk yooyu moo ko dal di sabab moo xam ci wàllu ko ndox safara ak courant bi yi ni kay groupe Média Invest gi xëy rek daal di xam ne ne limba nag jéggi na day lool ndax lu mu gàtt gàtt dem na ci ñaar fukki junni ci ay doom aadama ñeel seenu ko nekkin ci kaw suuf tey ye jile yi ni kaay gi ak li mu daal di sottandiku ci ab gëstoom ne nag yemul foofee dong de am na tamit ñaar téeméeri doomu aadama yoo xamante ni ci boobi li lim segg nañu leen settante leen bu baax a baax tey jile ñi ngi ci kër yi daal di toog te la ñu yeyoo du lenn lu dul ñu dugal leen ci barab fajukaay yu am dayu lool defal leen la nga xamante ni moom la wax réanimation ndax it seenu ko dund daanaka daal nekkul ci li nga xamante ni moo di loxo yu wóor loolee a a réewum Sénégal ak li rek di leen gi di bees bi le journée njax rek tiitaangi na ku nekk ci réewum Sénégal ak jafe-jafe ci ko lakk-lakk yi ndax amul leneen lu ko fi mën a saafara ak ay jumtuwaay yu ñu déggul fenn ba sax di leen seeni a tax ñi nga xamante ni saa bu leen ay lakk-lakk daal di dabe rek ñu ngi leen teg ci buntu hôpital yi wala bokk ci berendaayu hôpital yi ñi di fa jaaba jonge ñu romb leen fa ba ñu jaare fa ñàkk seen bakkan rax ci dolli tamit limub ñi nga xamante ni ñoom ñee leen di fàcc ñu ci réewum Sénégal ñi jógee ci musiba dal ci mbabakumbu doon li nga xamante ni tamit beneen mbir la gu topp àdduna bi jamono jile senegal mucc ci benn yoon la tribune yi ni woppi jabet la daal di xëy waxtaan ni doon la nga xamante ni tamit moom ap lim la ca daal di siiwal ak xayma bi nga xam ne jot nañ ko ci amal mu dem ci juróom-ñaar téeméer yu tegal juróom-ñett fukki millions yi doom aadama wopp joojale dana leen daal di tëral fi lekk atum 2045 journal bi ne loolee nag doy na li nga xamante ni moom moo di ay matuwaay ñu war koo tekk ci wàllu ko fagaru gi ak it nag li nga xamante ni ma ngi koy def ci wàllu ko lorange jafe bi ci wàllu ko paj mito mit mu doon loo xamante ni ëlëm na xelu ko nekk yu gi ni woppi jabar jooji li ñi nga xamante ni ñoo ci daal di xelu ci wàllu ko faj mi feeñal nañu ne ñaar ñuy dox ci kaw suuf tey jile ci àdduna bi kenn ko mën ko yoru te da koo daal di umpale ndax jegewul kenn ku ko xam ci wàllu ko kër docteur mu daal di koy settantal bu baax a baax ci wàllu ko wiir gi yaramam rax tamit nar naa àdduna bi wopp joojale di jabet ak lim bu doy bi muy ruusal ci bakkan at mu jot ci àdduna bi journal La dem na ci lu ëpp genn wàllu ko million mu doon it wopp joo xamante ni lay bàyyiwul kenn ci àdduna bi tu tànk ba ci ki gën a màgge yi ni kaay gi ne waa kër docteur gis nañu ci seen ëpp jàngat ne juróom-ñetti liir yu judd bu nekk benn bi àndaale nga ko jëlee ko ci sa waajur wu jigéen Sénégal nag ay soldaaram ñoom moome woon naki démb sargal ci kilifteefu ko son la république Macky li ci yéenekaay gi di Sud Quotidien lañ koy fekk ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di suñu soldaar yi seen ko njàmbartek xarañteef démb maaj nañu ci kanamu réew mi am réewum Sénégal nag mën naa doyloo ay soldaaram doon ñu jaamure lool xam le seen gëdd te nag di ko def lépp ci ak pata pataaral njiitum réew mi moo leen fa daal di delloo njukkal yéenekaay gi di Sud Quotidien président Macky Sall démb la daal di tàggatoo ak armée bu Sénégal ak kàddu yu daw yaram yem leen daal di bàttali la mu jot a jëflanteek ñoom ci dirub fukki at ak ñaar yi mu nekk ak ñoom fexe ba lépp loo xamante ni la yëtti woon nañ ko ni ay jëmtuwaay mu daal leen koy fàggandikul ngir lu ne yunn ëllëg ci biir nar a andil jafe-jafe réewum Sénégal jaaree ci defkati ñu teel ko tatafu seenu gaal mujj na teer donte ne la gën ci ñoom mu nekk ay ndaw yoo xamante ñoo fab woon jàpp ni bu ñu demul tugal rek seenu ko dundin ñoŋ yi ni kaay gi di quotidien moom itamit xëy rek daal ne musiba gi ci wàllu ko mbëkk mi amul lool ak deltu gannaaw ci réewum Sénégal ak saa su nekk li nga xam dañ ko ci gis ni wàllug njombe doon ay bakkan yu wadd yu ni gi ne toll nañu ci ñaar waaye tamit benn soxna bu ñu ne wanoon na lor ba sori lool mujj nañ ko daal di sawee loolee mooy bilang bi yéen i kaay gi ko quotidien aggaa la ngi ni le mi ngi dàqe woon ca bar ñi keroog ngoonu kaaltino ba juróom benn waxtu ci ngoon na jote dawut lu yàgg daal di teere ji fi nga xamante ne nag moom moo di ca gàddaay ci weti géejewaay yéen i kaay gi ni daanaka ab film la ñu xaw a def ñoom ndaw ñooñu nopp lim toll ci ñetti téeméer ndax bañu ne cëpp rek téeméer ya moom ña nga doon jéem a rëccu donte ne sax nur woon nañ ci ndox mi waaye ñu nekkoon ci weti plage ba ñoo leen mujj jàpp ngir teg leen ci loxol way takk der booba man laa fa bàyyi ko watali arène nationale nga sunu lomb yéenekaay ma nga desandi ci combat ngoonu ko kerek gi woon diggante Modou Lo ak Ama Baldé far ndam la mujj fanaani Parcelles Assainies sunu lomb yéenekaay ne raayàpp buur lamb ji maqaloo nag suuf tuur deretam laggal ko laggal yu métti tey jile nag waa pikin yéenekaay gi di sunu lomb ne seen yaakaar wekkuñu ko fenn fudul ci Eumeu seen ak kombaam bi war a am niki dimanche gi la ñuy jëm di dox ci diggante mag tafaatin yéenekaay gi xaatim ci suuf ne Eumeu seen mooy ki pikin di xaar ngir feral ay rongañam